billahi mina sheytaani rajim asalaamaaleykum mbokki jullit yi daara ali imran ci njiitu oustaz Alioune Sall moo yëgal mbokki jullit yëpp bés bi nga xam ne at mu jot daf koy amal ren mu jàpp ko nag benn fan ci weeru juin muy tombeeg samedi bi nga xam ne moo mujj ci weeru koor wi li ñu fas yéene amal nag mooy ndongo yi nga xam ne mokkal nañu alxuraan ñoo fas yéene nag tari ci kanamu woy wayjur yi ci kanamu soppe yi waaye ci kanamu seen moromu ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ali imran ci oustaz Alioune Sall ak ñi koy jàppale ci daara ji di ko yëgal mbokk jullit yëpp fépp fu waay mën a nekk képp kuy soppe képp ku nekk ci daara ak daara bu mu a nekk ci réew mi oustaz Sall ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal ci daara Ali Imran ba ca daaru Cubu ñu ngi ko yëgal mbokk jullit yëpp di ko yëgal nag soppe Ali Imran soppee daara ji nga xam ne moo nekk ci rajo Sud FM waaye itamit wéy juru ndongo yi ak soppee yi rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkk ci daaru Cubu ak li ko wër bëgg nañu nag bu 9 jotee ñu commencé mise en place bi 10h ñu jublu ci liggéey bi su ko defee rek ñu wax leen njëriñ li nga xam ne moo nekk ci daara njàngum alxuraan ak yi nga xam ne moo ci aju kon ñu fàttali leen ko samedi lay doon benn fan ci weeru juin incha allah ca daaru cubu bu 9h jotee fa la ñuy yendu incha allah ba tàkkusaan yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm. samedi le premier juin ca daaru Cibbu ci daara Ali Imran bu oustaz Alioune Sall asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. يسألونك الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقل يلتقيان بسم الله الرحمن الرحيم أنا سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذهان ثبت الماء وابتلت الأروح وثبت الأجر إن شاء الله سند الحافظ الثقة الكريم الداني الزاهد الورع المضيء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 koy ñaanal mu del si ci jàmm ak salaam fi kulli yawmin basimin rayyaani dafa am tabarakallahu am tudd tey ca Jurbel ñoo ngi ko ca ndokkeel di ñaanal gone ga yàlla na dund ci jàmm wuddihat bi bayaani su fi nekkoon ñu ne ko ban heure la ñuy bàyyi xëdd mu nañu cinq heures dix-sept incha allah ku xëdd ba heure boobu ci ngay bàyyi xëdd fuuba fi rusxaani in shita ñu ne ko woor ban heure ngay bàyyi mu ne ko woor ba dix-neuf heures trente-sept ci ngay dog incha allah ëllëg min tayyib al arkaani majmuuha aj bàkko ñoo ngi leen ndokkeel waa dëkk bi yëpp waa réew mi yëpp mboolem ñi déglu yes alu naka ñoom tam ñi nga ànd di la ndokkeel raaji wa karrir ma xafidta bila malal waktub ma shur am nañu fi nag genn gan goo xam ne gi daf laa gannaaw tabarakallah muy suñ Cheikh Dieng nekkoon nekkoon sunu euh, mu di fële ca al mamlakatul arabi saoudia ca al madina wara wa qiraatun fi hatifin ñoo ngi ko nuyu baax a baax di xaar mbokk yi kon nag ci niñ koy baax def rek saa buñ tolle ci waxtu 8h17 moo jot بوردك في ولا 20h17 bokk فالليل فيه لطائف 88 628 98 98 صلوات أيضا فاقرأ واش fàttali ko nag ñu ngi ànd ak OK TV tabarakallah ni ñu ko ànd ak moom ci koor gi ba léegi ak ci albidaaya من الهوى حتى يضيء القلب بالقرآن وعليك بالمتشابهات kii nee na dafa bëgg bokkoon muy wa saabixoona saabixoona asalaamaaleykum allo. allo. waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Fatou maa ngi lay bu baax a baax. ngi lay delloo ziar. di sa wàccuwaay. jërëjëf. di la ñaanal jàmm bu baax a baax man la Ana Fall. Ana bokk am jàmm ñun ñëpp. allahuma mi ngi di si la bu baax a baax. mi ngi lay dégg macha allah. Eh, di rafetlu macha allah jërëjëf fooy woote ci Sénégal. maa ngi woote Liberté 4. Liberté 4. waaw. yàlla ngeen am liberté ni Liberté 4 amee liberté. allahumma amiin. <laughs> dama leen a sopp rek te yàlla rek tax. waa ji sopp na la ñun ñëpp mag suñu mbokk si la. wax dëgg si yàlla seeni waxtaan. def nay jeexintal bu baax a baax. ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu de lañ ci euh, bëgg. di leen ñaanal bu baax a baax wax dëgg si yàlla. loolu de lañ ci bëgg jeexantal yooyu de lañ ci bëgg. yàlla keroog dama dégg tonton Mbacke Sylla. Mhm. mu ne. ku bokk ci ci yi mooy meeting bi ngay def. mu laajte mu laajte wàllu góor ñi ban melokaan lay am mais laajte gu soxla yi tamit su fekkee ni bokk nay ci ñun ban melokaan la wala am. incha allah maa ngi ci ñëw léegi dégg nga. waa di am mbégte bu baax a baax na. jërëjëf jërëjëf soxna soosu. jërëjëf soxna yëpp tabaarakallaahu bismillaahi rahmaani rahiim subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim nee bi ñu tàmbalee meeting bi ñu ngi waxoon keroog nu góor ñi di mel waaw suñu mbàkke dafa dencoon laaj bu incha allah xam naa bu ñu dina ko laaj mooy jigéen ñi nag ñi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ci parti bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne mooy arrahmaniya jigéen ci mel mooy day am jom am fula am fayda di sol lu jot tiyaatu yaatu te jërëjëf ci laaj bu am solo boobu waaw waaw mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. <laughs> sëñ sëñ Mayoro. sama sëñ sama xarit. yàlla na nga yor. amiin amiin amiin amiin amiin. tabaarkalla bisimilah. li ñuy ñaanal tamit yal na la yal na la yàlla jox cinquante deux milliards yi. amiin. <laughs> bu ko defee kon euh, Sénégal lu bari dana changé de. ndeysaan. yal nañ ci jot incha allah. amiin amiin. maa ngi lay ziar baax ci koor gi. naka koor gi naka sax. ah. naka koor gi. koor gi mi ngi saf rek. <laughs> waaw waaw jeex na ba pare nag. waaw daanaka de daanaka de. daanaka jeex na. fi nekk da ci des nag mën nañu koo war. waaw ñu ngi lay siyaar bu baax di ñaan suñu nuyu ak suñu siyaar mu fekk la ci jàmm. amiin bisimilah. suñu yaay njaay dañ leen ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi koy fay nuyu maam Xadi Kan ñoom ak sama nijaay day géey ñoom. Mhm. waaw ñoo di benn laaj rek. waaw. mooy fii suñu borom di wax ni. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين إلى آخره loolu daal lañ bëgg nga leeral ñu ko jërëjëf mboolem ñuy déglu Mayoro yàlla yor mbokk mi ngi tudd maam Saloum Dieng mu nga fële ca Njumun Njumun la bind wala Njumaan di ànd ak ñun jotaay bi Haji Mayoro fii jannaat ñi tasaalun anil mujrimin masalakum fi saqar qaalu lam naku min al bu ñu demee yomal xiyaam la aw gaay di seen aw gaay xamante nañ nag ñu xam ne dugg aljana daa yomb dugg sa sawara dafa jafe ba noppi ñu seen leen sawara léegi nag daal leen benn laaj maa salakum fi saxar yéen nu ngeen def ba dugg sawara ñu leen doon limal nag leen tax a dugg sawara ñu ne leen lam naku min al musallin wa lam naku nutimu al miskin wa kunna naxuud ma al xaaidin wa kunna nukazibu bi yawmi diin yéen ñu yóbbu sawara mooy dañ daawul ànd ak ñooy julli di julli Euh, lam na naku minal musallin daawuñ jox miskin lu mu lekk fa mu si tëgg nag ku ñu ci ku xool ca séen ñu ca ci lii lañ soox ba faatu fekk nu ca loolu moo nu te tax dugg fii sawara yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum aleykum salaam allo waaw dafa mel dafa dëpp suñ soobar du ci coobareem nag xam naa xay na ci euh, crédit ba laaj ñoom seen yooyu keneen ak nii dafa bëgg bokk asalaamaaleykum. salaam. waaw bisimilah. Oustaz Alioune Sall. ngi lay nuyu di la ziare bu baax a baax. walaay ndeysaan jërëjëf. El Salaam Melax. xayratu El Hadj Youssouf Ngiraan mbaa yaa ngi am jàmm. waa ngi am jàmm bu baax a baax. yàlla na jàmm fan yëpp nag damaa nekkoon Jolof moo tax rajo bi dégg ma ko woon ko mënu ma ko woon am. wax nga dëgg léegi rek laa ñibbi si di ko jàpp. léegi tey waa Jolof duñ jàpp incha allah. ah waaye moom de war de. ndax si def si def nekk ci ci réew mi rek jàpp ñu ak bitim réew. waaw dëgg baax lool de man damay nekk Jolof dama koy dama koy xalaat ba keroog muy ñëwaat rek. walaay ndeysaan. waaw yal na yàlla defal jàmm rek. amiin ñu bokk jërëjëf. alhamdulilah dafa am benn laaj bu ma doon laaj bu ñu yóbbante woon nag. waaw. ah kii neen de tox sigara daal mais neen bu ñu kii at du jàppaat day gàllankoor ko rek julli ndax loolu ndax mën naa nekk wala déet. jërëjëf. ah. ma ne waa ñu ngi ciy ñëwaat léegi incha allah. waaw waaw. tamit waa Kër Mbaye Fall ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax a baax. maa ngi leen di fay nuyoo ñoom ñëpp di leen ziar tabarkallah mbokk mi mu ngi tudd Moustapha Mboup association doomu Pikine la ca ca Ndelle. association doomu Pikine ca Ndelle jërë ngeen jëf euh, tabarkalla ñu ngi ànd ak jotaay bi kii day tox cigarette nee na waaye bu tax mu yàgg rek mu dem jàpp daal di julli waaye en bëggewuñ ko noonu ndax xetuk cigarette dafa neexut alayhi salaam soble sax xet nga daf ko daan tere ci jàkk ja waxuma laa xetuk euh, loolu ñu tuddee cigarette kon moom noonu rek la doon tëddee bañ ko def daal moo gën di ko def nan ko moytu ndax xet yi baaxut xet yi neexut te borom xam-xam ya ña nga cay wax naan baax naag baaxut lu ñu wax baax naag baaxut nag bàyyil gaaw ndax nga mucc siwaaka ma al xaran fu li ndax gémmiñ gi tabarkal la seet wecc neex booy jàngal xuraan mbokk mi asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bisimilah tas Alioune waaw am ñu ngi lay ziar yàlla yàlla nangu ziar Mbaye Sakho Tamba Kaolack. Mbaye Sakho naka waa Tamba Kaolack. Tamba Kaolack ñëpp a ngi fi. waaw ñoo ngi ci yoon bi de incha allah. incha allah ñu ngi ñu lay néegandiku bu baax a baax. waaw soxna Awa Thiaw nee na conférence bi ci suba gi lay am comme na mu amee woon daaw. waaw incha allah rabi dégg nañ fi. 10 heures lay tàmbali. waaw. 13 heures 30 lay jeex. incha allah wàllum ci yàlla yóbbu. ñu julli juma allahumma bisimilah. mun nga baa teewee ñu teewee ci barke rasulillahi amin amin waa waa go waa waa Guinguinéo tam alxames la incha allah onze heures lay tàmbali quatorze heures lay jeex incha allah ñu ngi lay jot li nuyoo soppe waa Kamba yëpp maa ngi leen di fay nuyoo ñoom ñëpp ah, di ñëw kii démb dafa am soppe bu yónnee woon Abba Ibrahima Mbaye waaw am naa laaj bi leen ko fàttee woon a tontu acca ah, muy ci suuratu Yaasin te mhm. ah, suñu borom di wax inni amantu bi rabbikum sayudxil aljannata qaala yaa laytahum ya'lamuuna bimaa xafara li rabbi wa ja'alanii min al-mukramiin tabarkalla leer na naa ñi tabarkalla mbokk mi mi ngi tudd mi ngi tudd Maodo tailleur la ca Kër Massar sëñ Maodo nee na mi ngi ànd ñu jotaay bu jutatu joxe nag aw santam eh, sunu borom ci su ci yaasin goog ngay eh, laaj xëy na adduxul janna dafa am ci jamono yàlla yónni bu yónent ñu wedd ko mu yónni keneen ñu wedd ko mu yónni keneen fa asas naa bi thalith bi ñu waxee loolu nag dañ leen waa dëkk bi dañ leen sot soto ba bëgg caa gaañ kenn am ko jóge ca kaw nag di wax ak ñoom ne leen tee ngeen a gëm ñi nga xam ne laaj ñu leen dara ñu moom tam ñu jàpp ko dóor ko ba mu far génn àdduna bi mu génn àdduna mu dem teraanga yi ko yàlla defal nag mu ne yi yaa layta qawmi yaalamuuna bi maa xafar li rabbi wa ja'alni minal mukramin ak a neexoon sama mbokk ya xam teraanga yi ma yàlla defal kon de ca lañ nekk ko la ma nekkoon ca la ñu nekk ba fekk si ma fii jërëjëf loolu mooy borom xam-xam borom xam-xam maanaam boo ko defee lu métti ba mu métti keroog lay gën a la ci yow ndax ñii dañ koo rey ba noppi mu ne suñu borom yàlla yi taxaw mu yàlla ya'lamuna bima xafar li bi ak neexoon ñi ma rey xam teraanga yi ma nekk ndax ñu nekk ci teraanga yi ñëw fekk ma ci teraanga yi tabarkalla jërëjëf ci laaj ba am sala biir min aafati nisyaani mbokk mi asalaamaaleykum allo ziar waaw delloo ziar Pape Sarr Baye Fall Pape Sarr ñu ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla nañ ko bokk am macha allah gi ñu gënu baax a baax yàlla nañ ko bokk am dégg nañ fi yow lool jërëjëf di ñaanal Oustaz Mbacke gan googu wallaay ndeysaan yàlla na ko yàlla def magum lislaam amin amin tey jëmu jëm woon sama laaj ci sewtu xaaf waaw baada auzu billahi min shaytan rajim waaw wa jaat sakratu mawti bil xaq ski waaw allo waa dafa mel ni kooku dëpp na waaye mi ngi laaj benn laaj boo xam ne bii mi ngi ci suratu euh, Saad wa jaa sakartul mawti bil xaq bu del si xam ne dana ko laaj baa xam foofu nit ki daal su nekkee ci àdduna bu bëgg ba nar fee jógee la sama borom dex wa jaa sakartul moo bil xaq sukuraatu dee ñëw nag lii nag bu fekkee waajalu ko woon daalika maa kunta taxit la nga doon daw lépp a ngi nii daw sukaratul sakaratul mooti moo tax nit ñuy xëy hôpital ñee ña nga dagg seen tànk ñu nangu ñee ñu xotti seen biir ñu nangu ñee ñuy tabarkàlla bë bënn seen bët pour pikir ñu nangu lu ñu leen man di jam ci ay puso ki rab bu ñu nangu lu tax ngir bañ dem ci sakaratul mooti waaye nag sunu borom ne waa ji la nga doon daw lépp nag mi ngi nii tey tabarkàlla wa shukran ci sa laaj bu am solo boobu. mbokk mi daa bëgg bokk naa mi nga xam ne vingt heures jot na ba teg vingt-huit minutes asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. Oustaz ñu ngi ziar bu baax a baax. maa ngi la koy delloo. Sidi Diop Thiaré. Sidi Diop naka waa Thiaré. ñu ngi ci jàmm. Gaaram Géej. ñu ngi leen di ñaan Thiaré Gaar Thiaré Gaar. Thiaré Gaar acca. ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax. yàlla nañu ko bokk. di sant sama benn xarit bi di Alaay Jaak moo tax ma lay déglu fu ma toll bi laay. ndeysaan. maa ngi lay jaar bu baax a baax nag. nee ko maa ngi ko nuyu moom itam. Ah, waaw dinañ ko dégg incha allah. bisimilah. dama amoon benn laaj nekk suratul Araf. suratul Araf. waaw. waaw. bu ma Sëriñ Tuubaa bu nekk xol bu xaw ma waaye Sadio Lissaw mu càkk bi na ma di leen sax daal. walaay ndeysaan. loolu laa bëgg nga ma ci maa a baax nag. jërëjëf euh, laay jooju mu ngi nekk ci suratul Araf ni nga ko waxee léegi xusil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jaahiliin sunu borom nee na dafa bëgg rek nit mu féetewoo di jéggale di digle lu baax tey du mooy ñu ko réeree waaw xusil afwa mooy del jëlale del jéggale waaw day digle lu baax foo toll digle lu baax. waaw léegi nag aljaahiluuna mooy ñi la xamut wala ñi la bëgg a benn wala ñi bëgg a soppi sa programme mun ne ñooñu nag boo leen du moyul doo dem kon ñett ñooñu mooy doxal penc mi tabarakallah bayt bi ngay laaj tabarakallah ulaayika al qawm ma nga nekk ca xoqal bu kaaw ca taa iya boobu nga xam ne moom suñ tabarakallah moo ko bind ulaayika al qawm la yasqa jalisuhum nee na dafa am ci àdduna ay nit ñoo xam ne ku nar a texee di doo togg ñoom ku togg ñoom jëli cag texe lu tax parce que ñoom seenu toogin yiw lay doon duñ fa tudd ku baaxul duñ fa jëw duñ fa xas kenn duñ fa yàq dërëb kenn kuy toog ak ñooñu nag day mu jàgg nga jël seen i jikko te ku jël seen i jikko tàmbalee baax te ko baax aljanna nga jëm jërëjëf alquran li taamalu qawmi bihi lam yati lizina xaaj Mbàkke mbokk mi neen daa bëgg a bokk asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah wàññil rajo bi wàññil rajo bi wàññil rajo bi ah ñaar laaj waaw beneen bi mooy di leen di leen ñaanal li ngeen xam li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla defal. amiin. ren bi seen émission damaa turum tàcc. ah. seen émission damaa turum tàcc maanaam luñ la may ngay nekk mu jeex te doyle woo ci. waaw. te lii kenn mënu cee doyle. kenn mënu cee doyle. waaw waaw li ngay jël nii. Hmm. kenn mënu cee doyle ma doon laaj mbaa du ñu waree rek ngeen arrêté ko. <laughs> loolu laaj loolu laaj bu njëkk bi. beneen bi. waaw. boo julli fay sàcc. nañ koy defee. jërëjëf. jërëjëf sëñ bi kontaan nañ jëf mbokk moomu jërëjëf mbokk yëpp tabarakallahu mbokk mi ngi tudd yàgg wadd mu nga fële ca Rosso Sénégal di ànd ñoom jotaay bi yàgg ñu ngi leen nuyu baax a baax tabarakallah mbokk mi ne suñu émission yi ndax bu koor gi jeexee duñ ko dagg ah taa bi mën a am nii duñ ko mën a am bu koor gi amut looloo tax tabarakallah koor moo am barkeem ba nga xam ne bu ñëwee ñun ñëpp daañu ci mën a def émission yi waaye bu ñu sañoon duñ ko dagg xanaa dañ koy taxañ lépp rek yóbbu ko albidaaya alxames ci guddi insha allah subhanahu wa taala thumma salaatu ala nabiy almustafa xayri albaraya min bani adnaani ya taalib beneen laaj bi tabarakallahu fàtte naa ko xam naa bu ñëwaatee danañu ko fàttali insha allah qurani bi lahfatin wa tafaani inni asuuqu muwaddihan lak mbokk bi daa bëgg bokk asalaamaaleykum waaw ba Surabaay sax ñu jaar. bisimilah delloo ziar. asalaamaaleykum. tubaarkàlla. Fane Fane Seck. jërëjëf ah. ñu ngi jar baax waaw bu ak gudd fan. amiin ñu bokk. ndax ma daan laaj ma doon laaj ci sootu ndax sax. laay jooy laaj ci sootu ndax sax waaw. wa rabbanaa allaziina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayran wa kafallaahu al-mu'miniina al-qitaal. lay ndeysaan. waaw. Ah. tubaarkàlla laay ji sootul ahzaab wa raddallahu allaziina kafaru bi ghayzihim mooy na kafaru dafa am benn bis ñoom ñëpp ñu ko lu luwaay am def ca ci xaalis ku am doole def ca ku ñëwul yebale nga mbaa nga mbaa nga cotisé luñ bëggoon dañoo bëggoon ñëw almadina coalition boobu nga ñu xam ñu def daal di faagagal sahaaba ya faagal yonent ba fay lislaam mu jeex ñu màbb jàkk ja taal ko bi mu ñëwee nag ba nga xam ne lal nañ seeni pexe sunu bara mi nga xam ne moom ku lal ay pexem bu say pexe say pexe yàqu waradallahu li si na kafaru bi xajihim yàlla fab seen mer yooya delloo leen ko lañ bëggoon am amuñu ko jërëjëf ci salaaj ba am solo bi ma xamsatin fi kulli yawmin bas mbokk bi daa bëgg bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa waaw dafa dem del si bisimilah waaw Pape Sarr daggate na tabarakallaa ñu ngi ci jégalu bu baax a baax kii Modou Ngom la tudd nee na mooy mooy borom Ngomeen Couture Modou Gueye borom Ngomeen Couture <laughs> ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax tabarakallaa na nga fexe rek ba li ngay jël ci ñaw yi mu bañ a doon ñaw yi ëpp ba seeni borom duñ ci jot te ndax loolu baaxul ci feet yaani axlis li rabbika mbokk mi daa bëgg bokk asalaamaaleykum waaw waaw dama doon laajte julli fay faat ndax dañoo bari dañoo bari julli yoo xam xamatuñ ñu wax nga dëgg de jërëjëf jërëjëf euh, nee laa julli fay faat nu ñu koy defee waaw julli googu daa bokk ci li ma jàngagul julli googu daa bokk ci li ma jàngagul maanaam àgg guma ca julli fay faat àggaguma ci moo tax xamaguma nuñ koy duñ koy nuñ koy defee jërëjëf xam naa su ma ko xam incha allah dina jëmbal ma baaxee la ko waaye daal àlliwa ji àggagul ci julli fay faat mbokk mi da bëgg bokk salaamaaleykum ah moom tam dem na ilayhi walaw bi hirdika ayatan fal waslu yudwi dhillata dhama nee na bul jël bi nu mbokk ndax jël bi nu day yàqum njàng asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu bisimilah waaw i de mbokkum daara la mu ñuy wax Serigne Mouhamad Mbacke Farmat oh xayartu xayartu xayartu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax maa ngi bëgg ci sa dugg bi loolu Mbacke balay sa ah alhamdulilah ndax yàlla dugg dugg gi de mooy mooy mooy li war waaw <laughs> ah, naa yéen moom eh, nun ngeen nekkal foofu wala boo yowaat ko rek te warkàlla waaw ah, kon wax wax waxtu wu nekk rek lii dañuy war suñu wajur loolu la ñu waxoon Serigne Saliou waaw ndeysaan mu ne doomi doomi daal fu mu nekk ndeysaan na ah. yëg ne doomi soxna yëpp la fa nekkal dëgg la dëgg la ndeysaan dëgg la ndeysaan dëgg la ñu ngi rafetlu bu baax a baax jërëjëf Mbacke yaa mbégte kontaan de bu baax a baax ci taxawaay wallaay ndeysaan comme daanaka léegi-léegi dañuy dem ba mu yàgg sax hmm. <laughs> ñu ñu ñu ñu ñu ñuy xalaat ba xam ndax da da da ngeen dallu ndax <laughs> moom daal day mel ni waaw wa waxtu wu nekk rek yéen yéen a ngi ci waaru wallaay ndeysaan comme comme yàlla xam na ni léegi-léegi dañuy toog ba mu yàgg dañuy ñu ñuy xalaat woon waxtu ngeen di dall comme promotion la nañ parafitoo rek balaa jeex nu kii ndeysaan ma ma macha allah macha allah macha ndax ndax maam ji ñu am bu wax yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi macha allah lam daan daj ci koor kenn du ko daj ci koor dëgg la dëgg la ndeysaan dëgg la rawatina koor rawatina kooram gawoon ca maa yomba dëgg la dëgg la macha allah dëgg la dëgg la de dëgg la de ah, ah, ah, <laughs> macha allah yal na yàlla dëggeeral taxawaay yu baax rek amin amin te guddal fan wi lool te yokku wér gi amin Mbacke amin Mbacke waaw taxawaay yu am na solo lool rawatina nag moom ni ni ngeen koy defee <laughs> ndax moom dañ lay topp waxtu wu nekk waaye daal ni ngay wàccee niveau bi ba toll ak jamono daal ndeysaan <laughs> ndeysaan ndeysaan am am na ci solo lool wax dëgg yàlla ndeysaan dëgg la dëgg la jërëjëf am nañ mbégte lool ñu ngi naan yàlla suñu borom sàmm leen te aar leen bu baax a baax amin ñu bokk amin ñu bokk musal leen ci mboole ndog yi yëpp amin waaw tey nuyu tey ziar suñ suñ mbàkke baax a baax. mi ngi lay dégg euh, Saaf ñu ngi lay Alioune Mbaye. walaay ñu ngi lay <laughs> dégg ñu leen di topp ci waxtu yëpp. jërëjëf jërëjëf. <laughs> jërëjëf xam naa ginnaaw euh, ligne bi day xaw a xat. waaw dëgg la kay. ñu taxawandi noonu rek waaye am na mbégte lool nag moom. yëg nañ ko yëg nañ ko jërëjëf. jërëjëf tabarkallahu Mbacke ñu ngi lay ziar baax a baax a baax loolu am na ci solo ndax itam euh, mu noonu rek tabarkalla mbokk mi mi ngi tudd sëñ Fallou Ba mu ngi fële ca Kaolack sëñ Fallou tabarkalla ndaw li agsi na dans commentaire wala boog no comment sëñ Fallou ndaw li agsi na rek ñu yem foofu mbokk mi mi ngi tudd Dame Ndiaye ma nga fële ca yëmbal euh, tabarkalla Dame Ndiaye li ngay li ngay kii nag xaw taxut a yomb tabarkalla. waaw waaw nee na ku jàngal xuraan doo ragal dara mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. waaw maa ngi siyaar bu baax. yàlla ñaar nañ ko siyaar. ñu ñaanal bi. yàlla nañ ko bokk am ñun ñëpp. yonent bi amiin. barakalla. ba am laaj bi indi woon. waaw. laaj bi ayca. dafa mel ni dafa xam naa dana dellusiwaat incha allah kii mi ngi tudd Maku Ndiaye ma nga ngaa xam un Maku Ndiaye ca xam un nee na mi ngi ànd ak ñun jotaay bi tabarakallahu te di ci jëriñu tuuti abdun daifun ya ilahi fani wala in asabtu fa minka wahdaka xaaliqi waaw mbokk mi daa bëgg a bokk bisimilah waaleykum salaam tabarkàlla jërëjëf xam naa léeg-léeg nit di dugg fekkal bés ci kër bi lu bari moo tax bu ñëwee rek ñaare eh, dagg day daal di xaw yomb as ragiban xifd alquran bi lahfatin wa tafaani waaw noonu la ñu jàngal xuraan asalaamaaleykum waaw ah, maaleykum salaam bisimilah waaw Oustaz ñu ngi lay ah. siyaar nag la koy delloo jaajëf ñu leen di sant te di leen siyaar bu baax jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal waxtaan yi ngeen def ci koor geeg ñëpp yàlla na ko yàlla def ay xéwal xam ci ko seen ko amiin ñu bokk ñun ñëpp ñu bokk amiin waaw Mamadou Diop la AIBD xaritu Aline Mbaye Oustaz Aline Mbaye AIBD ci ah, lay ndeysaan aéroport <laughs> waaw waaw aéroport waaw ndeysaan ndeysaan kontaan nañu lool lool lool ci yéen yàlla na yàlla kontaan amin amin amin amin tabaarkalla tabaarkalla waaw waaw waaw imaam bu bari ñeeg tëngeej moo ngi ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg kooku imaam intellectuel la <laughs> <laughs> waaw ñoo ngi bu baax euh, même keroog maa ngi wax Alioune Mbaye sax ma ne ko Mbacke naa na ma defal kale ci alxuraan bi ni mu koy jubbantee kaa ñi. moom jàng jàng na tubaab mu wuti naa ñun ñi nga xam ne ñetti fan lañ jàng tubaab génn. waaw waaw ah, déet ah mais yow itam ne <laughs> lépp lépp baax na de ndeysaan wax dëgg yàlla. walaay ndeysaan rafet nañu lool lool lool lool émission rajo bi daal lépp lépp ay xéwal la rek. jërëjëf jërëjëf. ñoo ngi leen di sant bu di leen siyaar di ñaan yàlla yokk seen xam-xam. amiin dañuy taas seen barke toujours pour mën di nekk. jërëjëf. jërëjëf dañ doon fàttali jërëjëf ñu ngi koy nuyu nuyu waa ay AIBD yëpp aéroport tubaarkàlla mbokk mi ngi tudd Doro Sylla Doro Sylla ma nga fële ca Paris nee na di ànd ak ñun jotaay bi Doro merci fi sabiil ayaami raaji ma mada li tuthabbit al mahfuud waaw nee na boo jàngee seman nag boobu ba agsi ci àjjuma du ko defee nga muraaja te tari li nga jàngoon dana tax doo fàtte mbokk salaamaaleykum aleykum salaam ah na moom itam xam naa liy dagg tey ji xaw naa sakkan xaw ma nu mu demee noonu nag في كل شهر يا أولي الحسبان راجع وكرر ما حفظت بلا راجع وكرر ما حفظت السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام دنگا jege rajo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah isa isa ba isa isa la dugg naa la man la Paate Paate Paate Diallo maa ngi la woowee Saalum Paate na nga def maa ngi si jàmm baaw isa isa maa la bëgg maa leen bëgg naka waa Saalum. waaw ñëpp ñu ci jàmm baax. alhamdulilah. aarikal la kay maa ngi ziar dama eh, dama laa bëgg lool nag dama laa sopp lool. koo bëgg bëgg na la mayit bëgg naa la dégg nga. waaw jërëjëf waaw merci. jërëjëf jërëjëf ko bëgg-bëgg na la yàlla ñu yàlla boole bëgg mbokk mi ngi tudd Pape Ba wala alaaji ndongali Pape Ba dëkk ca Thiès mbuur de la dëkk mi nga àndul jotaay bi mooy borom Bakoutir nekk fële ca marché central tashabuha fi alquran karamatun lil xaafidi tabarkalla mbokk mi asalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ajakumba Hmm? Adja Kumba Diop xam naa dina dellusiwaat incha allah ndax moom euh, ci daara ji la bokk ci penc bi la bokk ñu ngi koy nuyu baax a baax xam naa léegi tey mu ñëwaat ci jataay bi ahad aw maraban id kullu cheyin fa id kullu cheyin faari tabaraka lépp ay jeex mbokk mi allo salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu waaw man la Souleymane Souleymane nanga def. jàmm alhamdulilah. yaa ngi am jàmm. jàmm alhamdulilah. tabaarakallah. maa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa ngi sant bu baax. alhamdulilah. bisimilah. dama doon woote rek ngir nuyu te di la bu baax. jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla fay la woote beeg nuyoo bi. tabarkalla tabarkalla jërëjëf mbokk mi mi ngi tudd Daouda Fall mu nga fële ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi Daouda jërëjëf wastagni an dunya al bashar waaw nee na boo xasee am xuraan bàyyil adduna ji ak waa rek tabarkalla ti jàpp si alxuraan mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam Oustaz Alioune Sall waaw Mouhamadou Gueye Bonam Mouhamadou na nga turandoo <laughs> ko sopp sopp na la. Oh, ko sopp sopp na la. yàlla na yàlla fay li nga def ci ñun ñëpp. amiin amiin allahu akbar. yàlla na yàlla fay. amiin massa allahu akbar. jërëjëf jërëjëf tabarkàlla xol ba xol ba tooy na rongañ dal ci dënn. Euh, yàlla na yàlla mottali rek kii mi ngi tudd Assane Diop mi ngi ci Parcelles Assainies unité 18 nee na di ànd ak ñun jotaay bi nee na mi ngi ñaan yàlla balaa yàgg Sud TV ñëw amiin Sud TV tabarkalla fi majlis qura kii neen daa bëgg bokk asalaamaaleykum allo kooku kan ak si wut wa muallimin agdiq alayhim nicmata ridwani thumma salaatu ala nabi نبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبلا mbokk mi daa bëgg bokk asalaamaaleykum allo allo allo ah, waaw waaw yaa Oustaz hmm. Oustaz na nga ne waay man la ma jaay mbay ma jaay mbay na nga def sant yàlla bu baax alhamdulilah tabarakallah tabarakallah di lay jaajëfal jaajëf merci beaucoup yàlla la yàlla fay amin ñu bokk. yàlla yàlla yàlla dëgëral taxawaay ba. waay amin amin waay amin amin. ñu amuñu sa fay Mbacke wéetal nañu mais macha allah. waaw tubaarkàlla. waaw keroog laajoon naa la ci ñu war a génne asaka nekk Paris. waaw moom foofu moom mi ngi ñuy dégg déglu nii xam naa ne en direct bien que mi ngi foofu soo ci mënoon jaaraat rapidement. asaka asaka muddu koor wala asaka xaalis. noo asaka ci boppam. d' accord maa ngi ciy ñëw incha allah. jërëjëf waay jërëjëf mbokk moomu xam naa mooy sunu auditeur bu mujj kii mi ngi tudd Codou Cissé mi ngi ci kër mbir ndaw di ànd ak ñun jotaay bu fekkee dëkk ba ñëpp ndaw lañ sant de tabarkàlla ko fa ndogo ba muy tudd <laughs> doo am loo lekk la mbokk mi nee na azaka azaka ki koy génne mooy ko am lu mën a jënd quatre-vingt-cinq or actuellement defe naa mi ngi ci un million cent un million quatre su ko defee ko am loolu da ngay génn asaka deux virgule cinq pour cent sa alal jox ko faqir ak miskin yi boo ko xamul nga jox ko sa ilimaan wala koo wóolu ci diine nga jox ko ko mu jox ko seeni borom. kon bu xaaj Mbàkke nekkoon dañ ko xam ne mu fàttali ñu tabarkàlla ku wóor ba ku xëdd ban heure lay bàyyi mën nañu ko xëdd ba. Euh, cinq heures dix-huit ci lay bàyyi xëdd ñu ne ko ku war ban heure mu ne ku war ba dix-neuf heures euh, trente-sept ci lay bàyyi ñu ne ko suñ programme suba mu ne incha allah suñ programme suba mooy gengi neew waxtaan wa deux heures euh, midi lay tàmbali une heure deux heures lay jaax wala deux heures et demi bu nu fa jógee daal ni coow incha allah ba Kaolack ca sunu mbokk ya nekk foofaye rawatina docteur docteur Siré mi nga xam ne ci moom la ñuy dal saa bu nu fa demee yàlla na yàlla sàmm ko ar ko te barkeel la muy def bu nu fa jogee nag ca ëllëg sa ci 10 heures incha allah muy ma ca la ñuy dem ca euh, foofu nga xam ne mooy Sud FM bu Kaolack. kër de Kaolack ca la ñu defee conférence ba 10h lay tàmbali 13 h lay jeex ñu dem julli jàjjuma. samedi nag boo kenn woote ci yéen góor jigéen mag ak ndaw ak fa ngeen mën di nekk daaru cub lay doon. 10h lay tàmbali incha allah 17h lay jeex Baye Omar Gueye nee na fa ñëpp ñëw nag. donga yi ñu denk ca daara ji la fukki donga mokkal juróom-ñett ñu ngi ci daaru cub ñaar yaa nga ca mbooloo waa leen góor yi ñu jàpp ci daar nag su ma limee juum te duma ko jeexal di siyaare war nag suñu gan gi nga xam ne mooy Cheikh Dieng nekk waa Jurbel tabarakallahu ti nekkoon fële ci almamlakatul arabia saoudia yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa